cousine ba waxoon bintu Shaati ndeysaan dafa gaañu wallaay ndeysaan jàngale na ci université yépp wante li mu waxoon ni ki yàlla jiital jëme ko safara sax war na yokk cofeelam ci yàlla parce que yàlla lu mu tëral rekk jekk na tëralul mukk lu jekk ba ki muy wat jëme ko safara kooku na yokk cofeelam ci borom bi moo gën te moom loolu la gëm gis nga teesam ba ci wax yépp ngi def tees bu amul morom ba tax na rekk kooku it jigéen ñee ko moom waaye itam li sidna Ali waxoon ni jigéen ñi nañu tekki seen lam takkal ko góor ñu nasax ñi jaroon na ñu ñu ñam jigéen ñi fal leen ba xam daañu def lu sotti walla de jar na ko de ba xam fuñ ci toll def ni jigéenu Israël yi rekk ca jamono yu jëkk ya ba góor ña ba bew ba bew ba bew kenn mënul dëkk ak kenn mënul dëkk ak jigéen ñépp xëy def seeni réunion seeni comité interdire ñetti yëf bu kenn toggal góor bu kenn fóotal góor bu kenn tëdd góor ci kaw lal benn weer lañ ko def góor ñépp yaru ñépp ñëpp yaru waaw parce góor dafa gaaw a ber bew dafa gaaw a bew waaye bu ko jigéen nattoo rekk mu daal yaru dara nga ci mënul mu mel ni lu ma a bàyyi xel la e su ko defee fii Sénégal la mu mel na ñi fi jaar kenn ku ne yàlla doxale na wóllëre sama digganteeg yow bu dee doomu soxna yi ñépp alaaji Abdoulaye si sama jàngal mook alaaji Chandiaye Mabey ak sëriñ Mamaloo tabarkalla doomi soxna lañu ak Mouhamed Yahya ak Mouhamed al wullu fëta ñii ñoo ma jàngal ba tax na bu dee côté gànnaar walla côté bi sant yàlla ngi ci sama najaay yi ma am yépp naar lañu ñu nga dëkk gànnaar waaw ñépp wëllëre Alaaji Abdu Kan lañu ñépp wëllëre Alaaji Malik lañu waaye ñepp ñoma jangal ben benn yoon rek la ma sa am sëriñu tukkulóor mu dom fuma ma fayu ah paramul parce que daf ma ni ijaajul jilati maniko ken ko jilati mu domp ma ma fayu mu ni ma waxal ija jul jilati ma ni ko kenn du wax ija jul jilati mu bëgg dompaat ma yëkkati sama àll wo waaye dafa mujj ree ba ci suuf ma ni ko ah, amul tabarkalla tabarkalla suñu woy jur yépp dañ nu daan gàgganti suñu yi daar yépp dañ nu daan gàgganti la te du yàq seen soxla waa ah, du tax ñu taxaw koo ci gis rekk ci farata la ne góor gi sayer mbay bu ma daan bu ma masaan romb dama naan doxin wii la Sidna Omar bu waaw c'est un gentleman yàlla xam na ko moo denc suñu bàjjen suñu tànt wallaay ndeysaan góor gi Sayer Mbay doxinam rek jar na lu nekk waxuma la ni mu mane alquran ak ni mu bëggee alquran mais doxinam rek tabarkalla tabarkalla doxinu sportif pire ak ñi ci des ñëpp Sëriñ Lamine Kébé bu la nuyoo rek nga xam ni kii xamul gopp xamul larmet wallaay alluwaam rek la xam la tabarkalla la ñoom ñëpp noonu la ñu mel ba topp dex gi ba topp géej gi tabarkalla ñu nu fi xam yépp di ay doomu soxna foo gàgge ñu gàggante alaaji bu saaxoo alaaji Malick si mii la mujj woo ndeysaan yónni ko la mu ko yónni yépp ci semaine boobu la gaañu yàlla xam na ko boo demee waalo sunu mag ya fa nekk ñoom Amat Saw Ablaay bëgg sol lu baax bëgg sol lu rafet booleeg seen xam-xam góor gi yàlla jàblaay saw ko jur gis ngeen pirim Serigne Cheikh Batoog euh, euh, Cheikh Abdoulaye Maguette ak Sayid Yaqub pirim mu leen firil mësu ko firi mukk ci kaw suuf pirima am na weeru yàlla te bés bu ne mel ni gam doo xam fu nit ñiy lekk doo xam fu ñuy naane Cheikh Abdoulaye Maguette ak Seyid Yaqub Serigne Cheikh Batu firi leen piri mu mu masul firi mukk ci kaw suuf ñépp bàyyi seen soxla weeru yàlla bés bu ne mel ni gàmmu te nit ñi dañuy lekk ba desal naan ba desal tabarkal loolu fu kañ lay amati loolu mooy li nekk xam na bàyyi ci xel nag baax na ndax nit ñu baax lañ wallaay nga ñëw ndar ñoom Alaaji Tijaan ñag ñile ñoom ala wallaay wallaay wallaay nga ñëw ndar ñoom Alaaji Tijaan ñag ñile di góor góorlu ñoom Sëriñ Alaaji Siise tabarkal la ku ci gën a bëgg xam-xam bëgg sa àlluwa bëgg sa bopp tabarkal la yàlla dimbale leen ci côté boobu man ma nekk seen diggante rek bu teyee alaaji Abdu boo léegi alaaji Chanjaay ñu nekk ci loolu rek tabarkal la tabarkal la e, loolu doo ci jaar ba noppi ay fuu yu faya di yëngal loolu mënul nekk moo tax sama maam bu baax ba Seydou Nooru damay def waxtaan ca champ de course bu Ndakaaru waxuma bu Tiwaawan de champ course bu Ndakaaru am mag ñu dem seeti ko ni ko duñ ko seetaan du ko fi defee kon nag yow yaa ca war a dem mu dal di jël sëriñ Ndakaaru ànd ak moom ñu fekk ma ca champ de course adduna yëpp fa la ñu daje keroog la ma maître Moustapha Thiam notaire mi ngi sol jàllaabi bu rafet waaw ndax man ko sol lu rafet rekk dama lay xool waaw loolu jikko sëñ Babacar la woon alaaji amat buyo dafa sol dafa sol euh, simple bu rafet bu basin te kenn gomewu ko ca rue Thiers sëñ Babacar di ko xool rekk bu mujj mu ni ko ku la doon ñëwal mbubb bii noonu lay def moom ku bëgg lu rafet la mu wax ko ku ko ko ñawal waaye dafa dem ba ci kër ga rek summi ko lem ko bu jëkk jox ko sëriñ màmma ni ko jox ko sëñ Babacar mu indi jox ko mu ni ko déedéet waxewuma ko loolu dama bëgg xam tayeeram rek may ñawlu ci moom mu ni ko waaye boo ko nangu boo ko nanguwul daf koy gaañ sëñ Babacar nangu mbubb ma ma dem Abidjan fekk ko fa mu ñawal mu fukki mbubb may ma ko ma ni ko déedéet lii mënul nekk mu ni ma ah kay ndax ba ma joxee sama mbubb ma sëñ Babacar ba léegi weer wu jot ñu may ma fukki mbubb yàlla xam na ko yàlla xam na ko waaye tabarkalla tabarkalla ci situation bu mel noonu boo ko boo fa jaaree xaaji Saydu Nooru ñëw àndandoo ak sëriñ ndakaaru Ibrahima Jóob Alaaji Ibrahima Jóob jàmbaar loolu xale yee ko moom ndax xale yi dañuy dégg turu mag te xamuñu kan la te ñoo amee héritage yu mag ñi ñoo amee héritage yu mag ñi de su ko defee mu ñëw toog moom Seydou Nourou mi ngi toog Serigne Ndakaaru ñëw toog mu ñëw toog xanaa ñu ngay déglu pour mu ni ma waxtaan du fi ame mu wax leen ni suñu nee xale baa nga nële dawal toppi ca yàlla du jëkki ba nga màggat mu soog lay jox rus na ko kon nag bu ñu nee xale baa nga nële dawal toppi ca bu la rawee rekk ñàkk nga la cay des mooy nga di ko wax pàqu maamam yàlla di la bindal ni leen te dama leen di ñaan ngeen am pas-pasam ndax ñu ni dafa dëgër bopp baay bi dëgër na bopp comme moom Babacar dëgër na bopp comme moom Maodo yónni na ma ci moom mu lànk Maodo ni ma dimal jël Babacar mu dem ànd ak yow ca gaar ba ngeen teerul ma diw nee na ma ñëw ci Babacar ñu ko jógal solo mu ni ma fu ma jëm ma ni ko Maodo ne ñu teerul ko ganam mu ni ma kan la ma ni ko diw mu ni ma lank na ma ni ko bu ñaaree ma wax ko Maodo mu ni ma demal ca Maodo nga ni ko Babacar nee na moo lank demul gaar nee ma dem wax ko Maodo nee mu ree ma ni ko waaw lii lan la mu ni ma dafa xam ki ngay teeru ji man rekk la bañ mu bañ la yow rekk nga ni naa ko teeru mu ni ma parce que du la wàññi dara yow sa mission waaye moom bu dee moom dafa koy gaañ looloo tax mu ni la lànk na waaye keroog lu ne wax na ko nee na ndaw lu amul pas-pas rekk la bañ ci àdduna keroog Seydou Nour wax na ko ni ndax kii di waxtaan nii bu ñu defoon xal ba Bamako àttan na ci doxal tànku neen ba Bamako keroog ne wax na ko photo yaa yàlla xam na ko photo yaa ngi ah keroog lu ne wax na ko keroog lu nekk wax na ko sëñ Babacar nag dafa gërëm sëriñ ndakaaru pire bés ma dégg ko nee na ma bi maam dogee te loolu yéen ko moom de nee na bi sa maam dogee ne ñett ma seet góor gi ma jama jóob di maam di bàyyi ci yow naka la agsi ni ma gis nga kii nga suul na nga konte ci moom moo la mën a lépp waaye boo konte ci ñun rekk ci suuf nga jëm nee ma toog komiseer bi agsi tubaab la ni dama la soxla ma ñëw mu ni ma bu dëj bi ruusee demal sa yoon bu fi toog mukk ndax sa njaboot ñëwaguñu ca kanam la ñu njaboot ñëwaguñu ca kanam la ñu te dama lay yëgal ni sa baay addiya dundalu ko dañu àndoon ak moom kenn amu ci dara yàlla rekk a leen boole woon ma di la nettali ni mu daan dunde gis nga commerce bi ñu ni woon bàyyi na ko bàyyiwu ko daf ko mujj du doxal digganteem ak tubaab yi benn taalibe bokk ci ba ci la daan dund commissaire bi wax ko ko ba ci la daan dund karne yaa ngi fi muy jëfanteek ñoom kenn du ko fekke ndax ñi mu àndal mënuñu ko dundal ndax kenn amu ci ñaar dërëm ci sa poche yàlla rek kon nag lima lay ñaan mooy defal effort bu fekkee bor am na ci nga fay ko commissaire bay wax de sant ko lool mu ni ko dinaa la indil carnet yépp nga xam fu ñu tollook moom ndax àddiya daawu ko dundal mukk ku la wax ne àddiyaa ko dundal waxul li am ne mu dem gàddu karne yépp wan ma ko benn par benn ni ma nag bàyyil ma lakk ko yépp waaye nga warlul leen ni bor yi leen Maodo ameel dinga ko fay ndax yow loo wax rekk def ko nitu dëgg nga nee ci ñetti at laa fay bor yi lu ma fort rekk def ci lu ma fort rekk def ci nee na ba ko ñetteel mooy sëriñ Ndakaaru ne benn xale lu góor rekk la seen buy ñëw boo xam ne tabarkal la ku jekk la te mu ngi ci diggu dooleem nee na ndeke Alaaji Ibrahima Jóob la nee na ba mu ñëwee nuyoog man ba noppi ni ma dama fi bëgg a toog wéttali la ba dëj bi ruus nee na gëmewuma ko sax ndax boobu miinuma kenn nee mu di ma wéttali di ma wéttali ba ni dëj bi ruuse ñu àndandoo dem tabarka pour wax la ni nit fokk am fu mu jaar loolu mënul ñàkk te dafa am lu Haj Mansour si masa wax dama am maam mu nga xam ni dafa boole ñaari ceddo ceddo siin ak ceddo saalum may dem di gane ji alaaji Amadou Dem ma ne alaaji Ousmane Kan te nu ko yóbbaale mu xoromalal nu yoon wi parce que moom gëmul dara jàngul basin mi mara jàngul ABC te ceddo la ci boppa kawaru boppam ba ci weyam bu ko defee rekk li ko yàlla may mooy bu waxee rekk dangay waar mu ni ma daal boobu moo baax ma dem jëli ko nag ñu dem seete Alaaji du Dem waaye dund na téeméeri at ak lëf te tàyyiwul fenn te itam kenn xamul cedd bu tol noonu te amul lu dul xariti waliyu kenn xamul loolu la ki mu gën a xaritool ci àdduna mooy Haj Mansour tey ceddu ci biir di ceddu ci biti benn bés mu wax Haj Mansour ni ko reeloo naa Sëriñ Babacar waaw nit ku mën a wax lu reelul la nag Hadj Mansour ni ko kon de di nga dem aljanna ndax ku xam kooku yenam ni mu diise ku fexe ba mu ree rek di nga dem aljanna ndeysaan pour wax la ni mag ñi foye wu seen dund foye wu seen dund waaye mësuma gis mukk mel ni maam Kalidou Alaaji Amadu Dem nag dinu waxtaanal moom nag waxtaanam jar na lu nekk ci kaw suuf parce que dafa lewet te dafa bare xam-xam dafa lewet te maam Kalidou ni ko waaw Alaaji est-ce que yonent bi bu dellu woon yi mu digal nit ñi du am yu ci bàyyi mu ni ko luy loolu mu ni ko ah, dama dégg ñu ni daf daan wax ni arab bu bëggee dem gannaaw kër ca àll ba la koy defe te léegi defe naa kenn mënul dem gannaaw kër àll loolu kenn mënu ko mu nit nee na ajam moom sañ na dem gannaaw kër ci biir këram ndax loolu bu dellusi woon du ko dindi ma ni ko mais ku demay dellu si ko ku dem mooy dellu ma ni ko ndax kii toog rek wane na ni yonent bi demul wallaay ndeysaan keroog allah jaamadu bëtam sax taana ndax dafa bég wante wax la boo xam ni ni mu amee solo dafa ëpp ndax lépp lu ñu tere woon ñoom jamono koy def te ñi koy def ci jamono seen njaboot lañu loolu ñoom buñ ci sàkkul pexe fu nit ñi jëm ñooñu loolu buñ ci sàkkul pexe fu nit ñi jëm parce que Maodo dafa xëy ni tool bii ngeen may bayal xam ngeen ni dundaluma ñaari fan waaye daje bi ngeen fii daje pour xamante moo jar lu nekk dama bëgg bu mbay mi noppee nag ngeen ganeente a ah, ñu def loolu kenn ku ne dem gane ji moroom ma ñetti fan waaye am ci ku ñëw nag juum di tagg jabaru ka mu gane ji moo Maodo ni ko bu ko defati mukk ndax du kerse ko bu ko defati mukk ndax du kerse waaw ni ko jigéen jabaru jàmbur kenn du ko tagg ci pénc waaye seetal ndigal boobu ni mu rafete ak ni mu jaare yoon waaye jamono dindi na ko jamono ko dindi ndax boo dégloo rajo ci tagg jabaru jàmbur foog nga dégg looloo tax ñoom ñu wàcc seen waajtaayu lu mën a sowe njaboot yi parce que la digle jamono dafay ñëw ba dindi ko loolu bu fekkul nga waaj ko mara day sa njaboot yëpp dañuy gaañu dama lay laaj léegi ndax nit dana tagg jabaru jàmbur ci pénc walla déet dama koy laajte ci rajo yi moo tax ñoom fokk ñu sàkkal nu pexe fu nu mën a jaar baraw ndax itam nu dem safara seen gàcce la kon nanu fexe ñoom ba nun nu dem àjjana rek looloo ci am solo ah parce que dafa wax ni du kersa waxul ni dafa araam de waaw sew sew la sew sew la dafa wax ni du du kersa te kersa ci yéeg la bokk ah bu yéegee loo ci mën istibdaalu qiimatin bi qiima kooku mën na bañ nekk ndax yàlla itam dafa am lu mu tudde valeuru valeur yi te muy dund dund mooy valeuru valeur yi bu ko defee valeur yi soog a ñëw te mooy jikko yi mais dund mooy valeuru valeur yi valeur yi soog a ñëw te mooy jikko yi dund mooy valeuru valeur yi valeur yi sug a ñëw te mooy jikko yi te comme yenent bi nee na valeur yi dañuy yéeg ah bu kersa yéegee loo ci man fooy jëleeti kersa ah looloo ci nekk bu barke yéegee fooy jëleeti barki di gis ku denc milliard ci banque bi gis kuy fayu cent mille francs par mois gën ko gën ko dund ëpp ko noflaay foofu kële fu mu toll ñu ngay yónnee kayit yaa def li bind li dugg fii kaay fii seet kii nangam nangam seen milliard bi muy def nii yéen lu ngeen ma def nii lii lan la rek abadan abadan milliard bi rey ko alak ko abadan abadan abadan waaw kii moom di fayu cent mille francs par mois bu dindee fay ci courant fay ci ndoxam la ca des mu jënd ci suukaram moo ko waa këram ñu kontaan sant yàlla julli seen tàkkusaan ak seen timis waaw seetal loolu moo tax bu barke yéegee rek barke yéeg na waaw nit ko am xaalis def ca banque ba te nopp lu mukk bés bu ne ñu woo ko kaay luñ may doy xaw ma ko signal fii est yaa moom lii moom man lii déedéet ah loolu kenn mësu ko gis ci àdduna di nga ci dema dema dema dem ba dootoo xam foo kii moom mi ngi ak cent mille francs dina ci di lijjanti weeram ba weer wi jeex moo ko waa këram kenn du leen topp daal topp barke yéegi rek àdduna tukki moom la Maodo di wax ni jikko yépp dana yéegi ne daañu dem ba jafe ni gaynde jafe ci àllu jolof bi te ne bu jëkk boo fa jaaree boo fa jaaree rek gis gaynde waaye nee na léegi mën nga fa jaar ba génn doo gis sa wund waaw seetal loolu moo tax jukko yi dañuy yéeg benn par benn benn par benn benn par benn sama benn sëtam mu koy wax ni ma bu jëkk da nga baaxoon waaye léegi baaxatuloo ma ko danga jaawale ñaar yu bokkul lu ma ñaq ba ma ko laajee ma jox la ko waaye lu sang ñàq may ma ko patrimoine la kenn mënul fexe ba ma jox la ko moo xam taasu ataaya la moo xam baraada la moo xam bone la moo xam mbaxana la moo xam mbubb la lu mu nit ñàq ci barke Babacar Sy may ma ko ku wóolu ma may la ko nga dem àllaaxira du ma ko may kenn ndax patrimoine la walla tax ndeysaan wante mag ñi liñ fi bàyyi ku ko jariñoowul àdduna bu tukki la àdduna bu tukki la te duñu joxe mukk lu ñu gëmul te lu ñu gëm rekk faj na soxla keroog manifestation ñoom Ablaye Wàdd ba man mi ma yónnee ne Ablaay bu mu génn walla bu génnee ba wax soxlaam ba noppi nuñ ko yóbbu wut fu ñu ko làq man mi maa ko wax manifestation bu metti la man leen ñaar daal na ngeen ma leen nëbbal na ngeen ma nëbbal Ablaay Wàdd te nëbbal ma Ousmane Ngom sama waa kër nag bu fi kenn des na ñëpp dem ca manifestation ba waaw ñëpp lenn rek laa leen mënal nag benn affaire rek laa leen mënal mooy bal du tàkk ci dëkk bi waaw fetal yëpp um naa leen ci kàttanu yàlla dama leen di laaj bëccëg boobu ndax dégg ngeen bal bu tàkk te booba maa nga sol sama chapeau soluma grand boubou soluma manteau chapeau biir la sol chapeau waaye kenn déggul bal bu takk keroog te maa ngi ko jële ci xaaja Omarul Fuuti yàlla xam na ko ndax sama maam yu baax yépp Cheikh Al Hadj Omar la ñu amoon amuñu woon keneen amuñu woon keneen te dañ ko wóolu te dañ ko wóolu dañ ko wóolu ah sama turandoo moom it noonu la mel cheikh yàlla xam na ko te mag ñi duñu parparloo mukk nekkoon li Lamartine wax ci yonent bi du ko wax kon du ko sañ li mu wax ne alquran aaya bu nekk constitution ak li mu wax ni demal leen ma fa ñuy natte góor ñu mag ñi ngeen jéem ma fa won ku gën a kawe Muhammad bu ngeen fa demee du ngeen ko gis Muhammad Muhammad rek la kenn fekk ko ci te martine ko wax à toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine quel homme fut plus grand moo ko wax te ci la waaye du par parloo parce que xam na ni àllalu yàlla la looloo tax yonent bi wax ni nañu ma dimbale sama xeet ku ci par parloo nañ ma ko génneel ndax duma ko mën a sowe laysa minna man daa ila asabiyya ليس منا من دعا الى عصبية كو بار بار لو ريك نين ماكو генيل ناخ بوكول سي سما خير ها لولو موي لي سي نيك سيرين فالي لو نينا ما شيخ مانيكو مباكي نو ما سما گيس موكو ملني سيغ باوكر سي سامو ولا ري ak xam àqu jullit mu ni ma ci moom rek laa ko gis mu ni ma tekkat tubaab ba ma booleek moom gouverneur du Sénégal dama dem ndar seeti ko rek mu ni ma ndax bi ngay ñëw jaar nga ci sëñ Babacar ma ni ko déedéet mu ni tekk ba mu yàgg ni ma ndax may nga ma ma wax la benn baat ma ni ko waaw mu ni ma njuumte la njuumte la ndax jamono ngi ñëw bu nga xam ni soo deful ak moom nii rekk jaboot yépp daañu gaañ mu ni ma ma wàññeeku dem ci sëñ Babacar fekk fa gor rek ne lanu waxante yépp mu fas ko ma fas ko yow mi xamuloo lan te moo la jur mu ni ma yàlla dogalit mu def la ci gën def la sama diggante ak moom ngay intermédiaire keroog lu new digal na ma ko lu nekk digal na ma ko ci kaw suuf yàlla xam na ko pour wax la ni tubaab yiit am na ci ñu baax ñoo xam ne dañoo xam àdduna am na ci ñu baax ñu nga xam ne dañu xam àdduna te fa tabaarakallaahu yàlla daf may dimbali ma di ci am ay xarit ci ñu baax ñi kay ma di ci am ay xarit yo xamni dañuy muccu melni doomu nday ci sama wal yàlla xamnako dama tok bu muccu mani jàng kamil ak yeb bax waye na sababu sabab lu farata ta awma lu dul benn cinq francs ma def ko capital waaye fokk mu jël ci biir te bu ma ci jëlee billet trois cent mille ciy des ma jël billet rek jël trois cent mille yi def ci sama poche dem Paris toog ñetti fan am ñu ñëw ni ma dafa am kilifa yu la soxla ndax dafa am lu ñu bëgg liggéey te dañu wut ku ñu ko bokkal ma recevoir ñu wax ma projet bi ma d'accord ci ma leen wante dama am kilifa Abdou Diouf mooy chefu gouvernement ba Senghor ay président bi bu ñu joxewul ndigal duma ci dugg ma jóge fa ñëw Dakar wax ko Abdou Diouf mu ni ma matul nga di ko wax président dina la bind lettre pour joxe accord gouvernement bi mu bind lettre bi jox ma accord gouvernement bi te booba fekk ñu ci situation boo xam ni fii politique situation politik nit ñi xaajaloon nañu ñaari xaaj ñii ni Abdou Diouf ay remplacer Senghor ñii ni Ablaye ab kii Euh, Babacar Ba mooy remplacé Senghor ñu nekk ñaari groupe Abdou Diouf am imprudence bindal ma lettre ñi ko contre nag kontaan ndax ni mën nañu dëgg ci lettre bi boole ko ak Senghor pour wax la ni kuy noppalu ci àdduna amul ci bëccëg bi la Abdou Diouf yéege ni am nañu contacté Senghor bu wax ko ni ko Abdou dafay comploter ak Cheikh ba bindal na ko lettre leetar baa nga ne la ñuy préparer parce que Cheikh dafay dellu Paris Abdou itam xalaat loolu ma xaar xaar lettre bi jotuma ci ma continuer dem aéroport ca aéroport la ma Abdou téléphoné il est très malin il est très malin mu ma maa ngi lay yónnee ci lettre bi dama tardé waaye dina ñëw suba ma ni ko ku koy indi mu ma Babacar Ba xam nga kon buñ ko taxalee taxal Babacar kenn mësul gis lu mel noonu waaye ba tey rek lettre bi indi ay difficulté parce que sengoor itam moom itam kenn du ko fi romb wante mujj na marché tabarkalla tabarkalla trois cent mille francs la woon ma doxal ko bokk kook ay nit ba jënd ca loo xam ne amul benn solo di ko jaayaatuwaat pour wax la nit toog rekk kese kese baaxul de toog kese kese baaxul ma dem jënd ci loo xam ne ni mu ñàkke fayda ñu ni ma dangay dawal trois cent mille francs yi danga gis benn banque mu di la fayal tuuti tuuti ma gis benn banque

ñu ni yaa ngi dossier ma ni waaw ñu ni jox ñu dossier bi te nga dem ba ci suba nga dellu ma jox leen dossier bi ci ëllëg sama dellusi si chef bi ni ma li nga bëgg ci sa affaire bi di milliards defaru kon daañu la jox dix-sept milliards ñu jox ma dix-sept milliards ma continuer sama liggéey ñu ni ma nag ñaari délai fi am délai ñaar fukki at ak délai juróom-ñaari at yaay tànn bu la neex góor gu mag gi ma àndal ni ma doomu daara du jël boru ñaar fukki at jëlal bu juróom-ñaari at bi te nga takk sa biir bul naanati ataaye bul jëndati chocolat ba ba nga koy fay ma dégg waxam ca juróom benneelu at ba laa ko fay mu jeex tàkk pour wax la ni sabab lu sabab lu la tudd tabarkalla tabarkalla mu faf nekk ami ci sama diggante ak ñoom bu la kenn mënul nettali boobu ku bëgg ma boole la ak ñoom sax dangay ñëw wax ma ko ma boole la ak ñoom benn bés ali sawang may dégg benn banquier dajeeg moom li ko seen doomu sëriñ bi li mu jël mënatu ko fay mu ni ko fay naa ko mu ni ko man la sant ba fay naa ko jeex na mu ni ko nga ni mu ni ko man mii maa ko fay man la sant fay naa ko liggéey na ko ba mu jeex fay na ko benn fifteen bu ma amee nit amul lu nekk nag ñu def ko ci lu nekk ñu def ko ci waaye may tabarkàlla gis naa ni dëgër bopp lu am solo la wallaay mujj gouvernement bi ñeema ci ñeema ci ci façon boo xam ni ne voilà affaire bi dañu bëgg bokk ci ndax defoon nañ ci deux milliards mu bëggoon ministère des finance am ci représentant ministère uh, état uh, am ci représentant ma ni mukk lu ngeen dugg mu yàqu lu ngeen dugg rek mu yàqu yàllaa leen alak rek waaw ñu wax wax ma ni mukk ñu ni kon ñu porté plainte ma ne ay ci premièrement man li ma gëm ci mantiqu daara mooy régime bu amul légitimité kenn waru ko ragal man lol la ma ko dara def ñu defe ni damay fo ma jàpp ci lol rek ba mu jëñu fekk ci ma waye man lima gëm moy régime bu amul légitimité forcé nit nit ka nangu ko c'est que nit ka amul kilifa maa la ko wax régime nak bu amé légitimité su la waxé delo ko ci sa avocat sa avocat jël contact ak justice lu cay seen dëgg ñu jox leen ko lu cay seen dëgg ñu jox la ko wante régime bu amul légitimité bëgg la rekk boo lekk prince beeg ay yëf yu kenn xamul soow la tax ngay lox ci loolu jullit du ko def parce que jullit yàlla la am te yàlla def ni nga gëm ko loolu mooy li nga xam ni moo nekk loolu rek la du leneen façon yëpp noonu laa koy liggéeyee façon yëpp parce que caaxaan baaxul waaye dafa mujj ñu def ñoo nag réunion juboo waxtaan nangam nangam waaye man lool laa xam ba ci Senghor am na projet boo xam ni dañ ko ni loo mën a def pour opposer ci nanga ko def parce que dana ame solo te wóoru la ndax cheikh dafa bëgg nekk chef d'état wala déet waxuma la man mais sama wundu sax bëgguma mu nekk chef d'état sama wundu laa wax waxuma la man yàlla xam na ko ndax je tiens tellement à ma liberté

li mu waxoon te delloo ko ci abdul aswadi duali abul aswadi duali moom mi bëgga a protéger kàddu xaadima jaxate kala daf daan def bu mag ñi teewee mu ni leen dimbale leen ñu ku jàngul ci yéen na téye gémmiñam te ñépp dañ mujj d'accord ak moom parce que wax yombul wax yombul wax dafa jafe wax yombul wax dafa jafe moo tax sëriñ Muniru nee na di ñëw ci pinc fekk fa koo xam ni ku ko jox micro bu waxee pénc ma tas ku ko ko xañ pénc ma tas ndax dafay mbokk ñépp waaye bu waxee àdduna tukki loolu moo fi nekk ba léegi tabarkalla la kenn ku ne war a bàyyi xelam ci boppam kenn ku nekk war a seet lu mu mën liggéey mu liggéey ko kenn ku nekk bañ a ñaan digganteem ak boroomam maa ngi am benn mbokk bu nga xam ni moom ca kaw la jóge rekk daanu ci suuf te ko ëppoon chance amul ma ni ko bu ma nëbb wax ma lu la dal ba lii am mu ni ma dama jànni sama yaay mu ni ma dama jànni sama yaay ma ni ko loo doon def ba jànni ko mu ni def mu wutali woon saafara indi ko ni naa ko sangoo ma fil ko ni ko yii yëfu caaxaan rekk la mu ne ma ci laa tàmbalee ni di alkuba nii nga ma gisee ma alkuba faaw pour wax la ne sago sago lu am solo la sago sago lu am solo la ànd ak sago ci lépp te looy def rek nga jiital ci sabablu boo ñaanee ba noppi nga sabablu waaye ñaan ba noppi tëdd ca taatu garab ga ko baaxul kooku baaxul bi ci des moo di man wàllu politique lu nekk def naa ko ci wante li ma mas di xam mooy amul benn régime buy am barke te dafay tegu ci légitimité te parti politique yi une partie rekk lañu ci ci réew mi daara yi une partie rekk lañu ci réew mi réew mi umma la moo tax loo ciy def rek d'accord ci ak umma bi moo koy jox barke sinon ku ne mën na tappale waaye tappale du joxe barke tappale du joxe barke moo tax ku ci bëgg dimbali sa nit danga koy encouragé ci mu jaar ci yoon danga koy encouragé ci mu am légitimité loolu il ab faut absolument parce que moi j'ai dem naa ci élection gagné ko ñu sàcc ma mënuma ca dara ma àndandoo ak ki may conseiller mu ni ma yàllaa la ko defal mu ni ma boo gagné rek alku ci làmmiñam ni ma soo gagné rek alku te avocat la moo ma ko wax ñu nga ànd jëm Kaolack mu ni ma soo gagné rek alku parce que situation réew mi àgg na fu nga xam ni ku ko jëkka jël fi mu nekk rek dinañ la sikk yàlla dogal Mamadou Dia nekk chef de gouvernement ñu dem ba mu yàgg Alaaji Maxtaan Njaay ngaari téléphoné ma ni ma dama am sa yóbbante ma ni ko maa ngi tiwaawan te nga ñëw ma ni ko ñëwal ñu reer mu ni ma looy reere ma ni ko cere gerte mu ne ma kenn du wax cere gerte basile loo wax ma ni ko xam naa ko waaye dama ko rus tudd ndax tur bi dafa rafetul mu ni ma man nag cere bu ñu booleeg meew moo ma jaral lu nekk ma ne ko meew am na fi mu ni ma bu dee meewu boutique nag duma ko laal meew war a rek ma ne ko meew ratta am na fi ndax sama ndey tukulóor la pël la te dafa sàmm mu ni ma kon nag maa ci yoon wi te dëgg la soxna Suganda